rahmatullah. waaleykum salaam. alaaji Serigne Dame Lo wala ñu ngi loo mu Serigne Saliou. waaw loo mu Serigne Saliou. ñu ngi lay ziar seen yaaram. yàlla na ko yàlla na ko alhamdulilah. na nga defal coono yi. ñu ngi sant Serigne Saliou. naka ba Touba. ñu fi ñuy sant bu baax kenn. ah waaw ni ñu koy faral di defee saa su ne rek gars yi moom namoon nañ la waaye xam saa su ne bu xew xew amee moom faaw jokkoo ak yow laajte di waa Touba da ko wër. Hmm.

di ñaan Cheikh Mamadou Mountakha mu yàgg fi te ànd ak wér ak njabootu Maam Borom Touba gi wax comme ni ñu ko waxee woon rek xam nga loolu génn nañ ci jamono la wax ci mi ngi ci internet bi nee na dañ leen ko jàpp bisu àjjuma lañ koy jàpp yeneen dossier lay doon yu bokkut ak comme li ñu ko toppee ba nga ko waxee coow li bari na lool te ci commentaire ñu naan dana amul du am waaye lépp sant yàlla suñu borom bi waaw yooyu yëpp amul solo lépp solo mooy ñu def ñaan ci réew mi dal réew daa ngi ci jàmm amul yëngu-yëngu lu fi xew ndax jamono ji maa ngi Tuuba waaye di ñu fas yéene nag ci ñaan ci réew mi jàmm akub dal euh, koo xam ne kilifa nga te man li ngay man na ñaan jàmm ak réew mi akub dal loolu moo ëpp solo euh, man naa cee wax lu bare bare yi ci njàppam ak yeneen yooyu xew waaye amul solo ndax du ma faral di wax ci politique wala may faral di génn yu mel noonu di ci wax waaye balaa yàgg dara naa génn wax ci kàttanu suñu borom émission yi ñu dëgmal sax kan mooy gagné ñaata xob lay rawee ñaata la ñuy wax ne moom la rawee loolu lépp danaa ko wax incha allah bu soobee yàlla lépp aju ci xam-xam ndax nag defuñu lenn ko xam-xam waaye bu leen jàllee ñu nekk ci ñaan réew mi am jàmm amuk dal di dina Ousmane Sonko bu baax a baax lépp luñ ci man danoon ko def ci kàttanu suñu borom incha allahu rabbi mu mel ni tam wax dëgg yàlla fi mu ne yëngu-yëngu yi ni ko waxee fi mu doon ak coow ak jotaay mu ne ni waaye fi mu ne tey kenn ku ne xam ne Touba googu ñun dëkk ñoom wàccaayu màggalu màggal gu mag gi màggal gu njëkk geeg màggal mag gi ci lañ nekk ndax ku ne xam ne safar gi daanaka léegi mu teru waaw ñu gis ni sëñ Dame loo at mu jot da ciy def ay caravane di ci def ay marché ba noppi di joxe ay nag yoo xamante ne ak i xar ay gàtt yoo xam ne dañ koy defaat ci màggalu sëñ Touba bi Mm. fan nga toll ci liggéey boobu nga xam ne yaa ngi koy liggéey seen tubaab itam. waaw loolu loolu balaa yàgg dara danañ seetaan ci internet bi. Mm. Eh, ñu def avant première bi jàllale ko bu ne weer yu feeñ. waaw bu mag bi ni def jaar départ ci jumaay Serigne Bamba Serigne Touba Cheikhul Khadim ji. Mm. dem ba ca rond point bu Mbàkke ba fa lañ ko fa séenee defee incha allah yegg fa. Mm-hmm. wër dëkk bépp nag ci kàttanu suñu borom ak njabootam. Mm-hmm. Eh, noonu lañ ko fa séenee doxee muy karawaan bu bu ñëpp sol weex ñu kenn Serigne Touba. Mm-hmm. génn ci dëkk bi wër tourné teeri jee Mbàkke ca ron ba incha allah mm-hmm. loolu ñu ci wàccaay bi danañ seetaan avant première yi nag yeeg yooyu yëpp nga wax mm-hmm. ñun ko daan defee at mu jot mooy sañcaan yi li wër biti Touba euh, surtout foo xam ne rek suñu kàttan yegg na fa suñu doole ñu loolu danañ def tournée boobu tournée boobu ngir dem fa séddale ko euh, joxe ko baaxe ko mbokku taalibe yi nga xam ne ñoo ko yeyoo euh, ak sañcaan yi nga xam ne ñoo ko yeyoo ci biir Touba loolu tamit balaa yàgg nag ji dee ñëw Euh, da ngeen seetaan image yi gis ko ci internet bi ak ni ko daan doxee li ma wax rek na ñun lu ñu yor Serigne Touba Cheikhul Khadim mooy ki ko moom ñun lu ñu yor Serigne Saliou Mbacke mooy ki ko moom Serigne Saliou la ñuy moom la gonte bëgguñu dara lu dul moom xëmmee mun dara lu dul moom Euh, ku ñu jàpp jàpp ñu ngir sëriñ Saliou boo ñu bàyyi bàyyi ñu ngir sëriñ Saliou ndax ñun moom la ñu am euh, te fii ci réew mi ñu toll lu alal sëriñ Saliou umpéew loolu nag danañ def karawaan bi ànd koo fas yéene ko ànd ak incha allah bu soobee yàlla mboolem ñu nekk Touba ak suñu daayira bi nekk Touba ak sécurité boo xam ne nag bu doy lay doon muy police muy gendarmerie muy sapeur incha allah bu soobee yàlla danañ ci dem ci ñoom niñ ko daan defe rek ñu defe ko noonu toppatoo caravane bi mu am ci jàmm ak ci salaam ci kàttanu suñu borom ak tournée yi ñu def benn fanu safar bi teroo mhm. macha allah mu doon lu am solo ni ko waxee kon daal mu mel ni programme bi moom daanaka dara soppeeku wu ci waaye ko gën a yaatal gën ko yokk ndax dégg naa la nga ne ko tàmbale lu la ni Mbàkke lay tàmbalee ba yëriwaat fi nga xamante ni mooy mooy mooy jumaa ji waaw noonu lay demee karawaan bi jumaa ji la ñuy départ ci rond point bi Euh, wër route nationale dëkk bi départ waat teere ji ca ron payam Mbàkke ba incha allah bu soobee yàlla fa ne ni teere waat euh, jàng fa xasaayit def fa waxtaan comme duñ koy baaxoo rek ci karawaan bi mais dañ koy gën a yaatal ba ci euh, ren benn fanu safar ban na ginnaaw suba la màggal mooy safar yi ñuy def di tournée dafa yaatal liggéeyub Serigne Saliou Mbàkke liggéeyub Serigne Touba Cheikhul Khadim bi incha allahu rabbi allahu rabbi mu mel ni tam ba tey seen jàmm bala ma la bàyyi rek ndax maa ngi lay téye ci ligne bi nga xam naa ni téye bëri waaye ñu gis ni ba ci ba ci ba ci programme yu bëri bëri ak génn yi xam ne yaa ngi koy gën euh, xaaru sax fi ne dañoo dem ba ñoom boole la ci ay bés yoo xam ne ne dañ la koy dara jaalele wàcce la ko ba lii may yëg maa ngi yëg yëg am yëg yëg ni ñëw Dakar ndax am na bés bu rëy bu la fi tuddee lii ci booru Asilem Paris ci booru sëñ Basirou Mbacké Bara waaw loolu dëgg la euh, foofu fi si ci kanam tey Euh, yemook samedi ci kàttanu sun borom falaa jëm si ci bis bu mag boobu ñu tuddee foofu asalem Paris incha allah euh, falan fas yéene jëm si ci kàttanu sun borom muy géejawaay euh, ci kanam tuuti falan fas seene jëm si waaw loolu lépp Sëñ Tuubaa la rek li moo wax la ku ñu jàpp dañuy jàpp ngir Sëñ Saaliw jàpp ñu ngir Sëñ Tuubaa moo tax bis yi di bari nit ñi di ko tuddee di ñu ko tuddee su ñu génnee mbooloo topp ñu lépp ngir jëmi Sëriñ Saaliw rek la ci nit ñi jublu waaye du leneen am solo rek fi ne xanaa bu bu loolu lépp jeexee fi ne xanaa réew mi tam lan ngay digle ci réew mi am jàmm amuk dal ba nu mën a euh, yeggali mébét yeeg yéene yi nga xam ne kenn ku ne am nga ko ci réew mi fi mu toll nii lan lay doon fi mu ne ak kàddu yu mujj waa réew mi li mu doon sëñ bi mooy def ñaan rek xam nga réew mi toll na foo xam ne boo ci waxee. Mm-hmm. ku ne jàpp na da am lu tax ngay wax wala dara. dëgg la ñun ñun suñ ñun suñ jëmm nag xam na ne ñun bu ñuy wax yàllaa tax ñuy wax. waaye ñun amuñu lu dul Serigne Saliou moom la ñu am bu ñu ñëpp bàyyoon Serigne Saliou xam na ñun ñooy kan jàpp nañu te suñu jëf nangu noo ko te leer nañu te yëg na bëgg gin ko bëgg ak jàpp gin ko jàpp ndax bëgguñu dara lu dul Serigne Saliou Mbacke moo ne ci suñu xol euh, bu loolu amee réew mi li li may wax ñëpp rek muy Serigne yi kilifa dina yi ko man na nga ñaan réew mi am jàmm ndax li may faral di wax ne réew moo xam ne bu doon tàkk sa alal bokk ca ba sa sëriñ sa doom da nga ñaan ci réew moomu jàmm jàmm ju nag li ñu koy may mooy ñu fas yéene lépp loo xam ne day am jàmm wala day indi jàmm nan ko def ci bépp côté bu mën di doon incha allah fan yi balaa yàgg danaa ci digle ay sarax yu baree bari yi am numéro bi ñu ci pour experts yi ñuy dem ci internet bi euh, danaa ci def vidéo incha allah tegtal ci ay sarax yoo xam ne ñëpp danañ gis ne réew jàmm ji dana gën a yokk ci kàttanu suñu borom. incha allah rabbi jërëjëf sëñ Dame Lo Salam Vision mi ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal baax a baax suñu borom bàyyi la fi ba ci kanam ak kanam incha baax na jërëjëf ñu ngi leen di sant yéen di leen gërëm lu am rek da ngeen ñu woo laaj ñu ci seen xalaat ngir ñu waxtaan ci kon jërë ngeen jëf yàlla nañ yàlla fay.